naataal ñaar fukk ak juróom laata muy gëm Jésus nit ki day mel ni kuy dox ci lëndëm di taluy daanu ci bàkkaar ndax amul lu ko ñiital wan ko yoon wi bu ñu gëmee Jésus dafa mel ni dañuy dox ci ak leer Jésus wax na ni man maay leeru àdduna ku ma topp doo dugg ci lëndëm yàlla daf ñoo jox xelam bu sell bi ngir teg ñu ci yoon bi mu bëgg